jàngoro bu ne am na saafara bu leen jaaxle atoti di jóge Côte d'Ivoire li mu làmboo ci liy seddal yaramu doomu aadama mëneesu ko lim waaye bokk na ci li mu làmbool ñi am faiblesse sexuelle maanaam góor gi néew kàttan ci wàllu sëy atoti amu ca moroom ñi amee diabète dafay wàññi seen kër ba ci yow mi amee tension dafay régulariser sa tension atoté dafay leeral bët maanaam yow mi sa bët lëndëm atoté baax na lool ci yow baax lool ci góor wala jigéen bu am biir buy metti atoté ca ay ba ci fatiguement général wàccee coono moo ca mën ba ci hémorroïde foo toog sa biir di jooy naan xur wutil gaaw atoté ca MMC Global Business nekk fii ci Touba marché Ocass Mamadou Gueye moo koy indi ak quantité bu ngeen ci mën a soxla téléphone 77 716 23 99 ak atoté sa yaram dafay sedd gu mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tudde ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobu boobule bés nag C3S mu ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu lislam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Khadim Rassoul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am six millions de francs CFA ka ca topp cinq millions mille francs ñetteel ba cinq millions fukk ak juróom-ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog trois cent mille francs CFA C3S ngi ko yëgal njiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place neuf heures ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. shukran lakum sunu mag ñu baax yi fi daan yare dinu wan di yoon wuñ deju a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñuy teewlu fii ci seen seen Rafaahi TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen dokkeel ci weeru koor bi ñi ngi leen di wax dal leen ak ci seen émission sawtul xaq ngeen baaxoo ci ànd ak seen mbokk Mouhamed Fadil bala ñoo tàmbali mbokk yi dañuy massawu coono ànd ak naqar wu rëy rëy rëy suñu mbokk ya ci Palestine coono yi nga xam ni ñoom la ñuy daj ci loxo yi noon bu bon boobu tudd Israël ak mbooleem ñi leen di jàppale ñu ngi ñaan yàlla sunu borom dimbali suñu mbokk yi Palestine may leen doole may leen muñ waaye may leen saxu ndëggu ba jàmmaarloo gi ñuy jàmmaarloog noonu yàlla yi yàlla sunu borom subhanahu wa taala defal dimbal ci ndimbal leen ci ndam waaye ñi ngi wàññiku di ñaan yàlla yàlla na toroxal Israël yàlla na toroxal képp ku leen di jàppale moo xam état moo xam association la wala kenn kum manti doon yal na yàlla néewal seen kàttan yal na yàlla toroxal leen yal na yàlla wàccee leen yal na yàlla wàccee seen nguur ci barke weeru koor wi dañ ci am naqar bu baax a baax a baax naqar loo xam ni kenn xamul fu mu tàmbalee ak fu mu yam bu ko defee mbokk yi ñu ñëw ci suñu xew-xewu réew wi nga xam ni moo ñu dal ñun Sénégal ñu fas yéene waxtaan nguur ci jëmmi boppam jàppale gi mu war a jàppale askanam ak yit kawe gi mu war a kawe fayantoo mbokk yi ñun senegal yenn saa yi dangay toog ba mu yàgg ngay laaj est-ce que ñun état la ñu am walla benn gang état lañu am walla gang boo xamee ni dafay fayantoo ak a jël eh, eh, eh, sàmba dóor ko ci demba Seydina Aboubakrin Siddiq radiyallahu anhu keroog bañ ko falee dafa wax ni alqawiyu fiikum daifun indi xatta axuda alxaq minhu insha allah waddaifu fiikum qawiyun indi xatta axuda alxaq lahu insha allah muy discours bu am solo Seydina Aboubakrin Siddiq radiyallahu anhu bañ ko falee dafa wax ni fal ngeen ma waaye gënuma leen bokk na ci li ma leen mën a garanteel mooy lu waaye am am doole lu waay am am doole bu fekkee daa yore ak jàmbur wala daa tooñ bu ñëwee ci man ku ñàkk doole lay doon ba ma jël àq ja nga xam ni moom la yoreel nit jox ko jox ko ko yàlloo waaye lu way ñàkk ñàkk ñàkk doole ak lu néew néew néew doole buñ la tooñee boo ñëwee ci man dinaa jël sama doole lépp sëf la ba ak jañ la yoreel ma ànd ak yow xeex ba ñu nangul la ko mbokk yi lii mooy état état nii la war a doxee maanaam état wërta mën a am par parloo wërta mën a def li ñu tuddee deux poids deux mesures maanaam kii moo ànd ak man kii àndut ak man état warut a xam loolu état dafa war a tëddee njaaxaanaay nday ji seex la war a doon état amul kenn koo xam ni daf ko war a jàppal ennemi ci population am maanaam ci askanam état dafa war a am yërmande ci aw askanam lu raw ni nga xamante ni yaay ak ak ak noonu la am yërmande ci doomam parce que loolooy état masalan président de la république ni mu war a amee yëg-yëg ci population ci yërëm leen ci yiir leen ci yëg la lay metti ci ñoom dafa war a yam ak baay bi jur dafa war a yem ak yaay ji jur waaye yëpp dafa war a nekk koo xam ni dafa am lu muy jomb maanaam fayantoo di dem ci ñàkk fayda wala rànkiñe loolu état daf ko war a jomb waaye président de la république daf ko war a jomb waaye mbokk yi ñun wallahi da ngay toog ba ji yàgg yow da nga naan ñun président la ñu am wala maanaam doo xam sax loo ko mën a tuddee ndax chef de quartier sax du def loolu chef de quartier sax am na loo xam ne ñun suñu président yi dañ koy def chef de quartier jomb na ko waxumal chef de quartier waaye chef de village sax du ko def di wàcc ba ci suuf ba ci suuf laa wax ba ci suuf ci maanaam citoyen ordinaire yi di fayantoog ñoom di leen yàqal seen liggéey di joxe ay directive ngir ñu dàq leen ci seen liggéeyukaay mbokk yi loolu ku ko tuddee jëfi état danga ngaa juum loolu jëfi banditisme la mbokk yi loolu jëfi soxar la waaye jëfi ku suufe la waaye jëfi ku denc ci xolam rànkiñe mooy loolu loolu lees war a wax la lees war a wax la ndax gis nga il temps ñu xam ne il est temps ñu xam ne wax naa ko fi waxati ko fi doon président tekkiwul ne yow yaa moom jaam ñi waaye doon président dëgg-dëgg li ñu tekki moom mooy yow yaay jaamu nit ñi loolu faw ñu dégg ko te xam ko loolu faw ñu dégg ko te xam ko président doon ko wala loo man di jiite ci àddina la muy tekki moom mooy yow ci sa jëm bopp yaay jaamu nit ñi waaye nit ñi du seen jaam nekkoo yow kun fa yakkoon waaye fii ñun Afrique waxuma la Sénégal sax laa wax Sénégal gis nga boo nekkee président mbaa nga nekk directeur mbaa nga nekk ministre yow dangay jël sa bopp teg ko palaasu yàlla yow jàpp nga ni koo mere daa war a torox da ngay jàpp ne képp koo amal problème ñëpp dañ ko war a ba wërta tekki wërta am sax lu ko neex wërta reetaan yaa loolu mënul ne loolu mënul ne loolu mënta ne te du masa nekk ci àddina da masa nekk ci àddina dafa am jëf yoo xam ne dafa ñaaw dafa salte jëf yoo xamee ni baadoola sax rus na ko baadoola waaye la Matar Seck Mboro waxoon billahi dëgg la Matar Seck Mboro dani am réew bu ñu demee ba yegsi ci ñu jël baadoola dénku ko ko ku di as gor ku di as gor boo amee fulla na nga fat say bagaas te lemu waaye dinaa wuuteeg foofu Matar Seck Mboro tuuti dama dafa waroon a wax ne ku di as gor war naa jug taxaw takku ngir jàmmaarloog tooñ ga nar a xew ca dëkk ba loolu la Matar Seck Mboro waroon a wax kon mbokk yi dafa jot ñun sénégalais yi ñu gën a xëppe jàmmaarlook ñii nga xam ne ñoom lañuy tuddee ay ministre ñii ñuy tuddee ay maire wala ñu leen di tuddee ay DG wala ñu leen di tuddee président de la république ñu xamal leen ni moomu leen ñu jëndu leen ñu ta du ngeen ñu masa moom du ngeen ñu mas a jënd dangeen a toroxlu ci suñuy tànk raam ba yegg si ci ñun sàkku ñu jox leen réew mi ñu dénk leen ko waroon ngeen a am ngor waroon ngeen a gore gu tol ni bañ leen joxee réew mi du ngeen ko salfaañe du ngeen doxal doxinu ko soxar waaye doxinu ko ñaaw jikko waroon ngeen ko rus waaye defu leen ko dangeen a wane jukkoy muus ba ñu jox leen réew mi dénku leen ko ngeen yore jukkoy bukki ak till mooy soxor ak raye ak fàdde ak tëjaate waaye waroon na leen a leer ni mënu leen a maase toroxal ñépp mënu leen a maase tëj ñëpp mënu leen a maase tëj gi ñi mu ñëpp loolu mënta nekk amul ku ko man ci àddina Firawna moo leen ëppoon doole foofu vous les régime vous président de la république Firawna moo leen ëppoon doole foofu te teewul yàlla sunu borom kenn la ko booleel kenn muy Moussa mu màbbal nguuram daaneel ko ba maasale kook suuf allahu aalamu xaytu yajalu risalata sunu borom pion bi lay daaneel yàlla sunu borom dong moo xam ban pion la bis boo yaakaaree ni toroxal nit yow président yow gouvernement yow ministre yow DG boo yaakaaree ni toroxal nit ci kanamu askan ba kenn du ko bëggati mooy tax sa nguur sax boo yaakaaree ni tëj nit ci biir kaso mooy tax sa nguur sax boo yaakaaree ni tuumaal doomu aadama mooy tax sa nguur euh, sax tu te trompes da ngaa te xamoo nan la yàlla sunu borom di doxalee. te gis nga maandu dafa baax ci ci ci ci ci nguur boroom xam-xam yi dañuy wax ni al adlu asaasul mulk gis nga ku yore nguur bëgg nguur ga dëgër maandul te yamale boo demee bay atte na nga yamale ki la tooñoon démb ak ki dëkk ci di wut sa bànneex di ko sàkku loolu mooy ak maandu waaye loolu sax mooy jikko ju rafet mooy nite mooy nite gis nga dafa am wax ju am solo joo xam ne kii da koy wax yaakaar naa bu ma juumul ibnu tay dafa wax daan gis nga état bu maandoo yàlla sunu boroom da koy teg loxo da koy jàppale ak donte état ba état bi yéefar la waaye état bu jengee te mën a tooñ mën a jël ak jàmbur yor jukko ju bon yàlla sunu boroom da koy toroxal ak donte état ba dafay wuyoo ab jullit la c'est très important gis nga gis nga lii nii dafay feeñ ba ñun les africains les africains ak ñi nga xam ni ñooy européens ñoom ñooy dëgg-dëgg démocrate ci maanaam ci seen biir réew bokk laa bëgg a wax waaye ñun ñooy maanaam barbar ci état yi waaye waxuma askan wi xoolal li ñu def capitaine Touré capitaine Touré lan la def yow koo xamee ni nee nga da nga koo sant ab liggéey ci gendarmerie mu mëne ab enquête teg ko ci taabal ji ne lii laa gis ñu ne ko doo fi amee jàmm raje ko dàq ko mu ne wa aleykum salaam salaamun aleykum la nabtaxil jaahilin mu wax loolu dem yoonam dem seetiwaat wërsëgam dem ci école privée boo xamee ni xam-xam la fay jàngale moom yoonam nekkatul ci wàllu politique waaye ñu ne ko du ci dal mukk teg pression école boobu IAM teg ko pression ba école boobu dàq capitaine Touré mbokk yi lii fan la tegu lii bu dul soxor lan la bu dul rànkiñe lan la bu dul mbañeel maanaam bu dul wàllu banditisme wàllu gang lan la maanaam lii mënoo koo tekki ci lu dul leneen lu dul lii nga ko mën a tekkee yow koo xam nee na la wa aleykum salaam doxalal man ma doxal da ko bañ ba sax waxut ci politique yoonam newu ca ma nga dem ci école di fa jàngale droit te loolu xam-xamam moo ko may nga ne ko déedéet yow danga nga torox ci Sénégal déedéet yow doo fi tekki doo fi reetaan mbokk yi lii lan la gis nga président de la république kalaasu Moustapha Jaxate gi li feeg yaa ngi leen di déglu jàppal ni waxuma la folli de waaye danga nga ay at maanaam suñuy sët ñun di la rëbb wallahi gis nga li feeg yaa ngi déglu kalaasu Moustapha Jaxate gi nga xam ne jànguñu amuñu xam-xam amuñu fu ñu jëm dañuy wëreelu ñuy nopp nekk sa nopp bi di ko yéey di la conseil loo xamee ni leer na leen ni ñoom lii baaxul seen intérêt dong nga tax ñu di la ko conseil li feeg li yaa ngi leen di déglu wallahi waxuma la nguur gu daanu waxuma la folleeku waaye danga nga folleeku toog ay téeméeri at ñu di la fàttaliku di la rëbb di wax ci yow lu ñaaw ak taariqu la yarham histoire xamul yërmande kenn ku ci ne la nga bindal sa bopp ci taarix loolu lañ lay nettali te nit ku ne war ngaa am sa bopp way wu rafet wutal ko sa jaboot te président de la république yoon wi nga jaar yow ak sa gouvernement amul wenn way wu rafet wu ci am ndax yoon wi li muy nuru mooy képp ku dal ci sama kaw ma jàppee ko sama noon képp ku ma wax ni yoon wi ngay doxee baaxul ma jàppee ko sama noon ku àndut ak man ma jàppee ko sama noon wëlbati ku ko maanaam yàq ko loolu amul fenn amul fenn te loolu mënta nekk bu fekkee dañ leen a fal jox leen réew mi bu ngeen dee def ñun askan wi faaw ñuy wax lu tax duñu wax ñun duñuy xar duñuy nag duñuy ñuy ganaar nekkuñu ay fasaki mbaam yoo xam ne dañuy takkal ngalaab ba duñu wax li ngeen di def faw ñu di ko lijjanti ba xam di ko xool ba xam jub na wala jubut bu jubee da sant te duñ sant sax ndax suñu alal la bu jubee danañ xam ne jub na bu jubut danañ wax ni li jubut ni leen jubbanti leen ko loolu kenn mënta tee ba du ko wax gis nga boo tëjoon sénégalais yépp ray leen dugal leen ci biir kaso faw ci biir kaso ya la ñuy toog di wax yàlla sunu boroom dafa sàkk làmmiñ pour muy wax kum sàkkal ay nopp sàkkal la ay gët sàkkal la làmmiñ xel xol def la ngay nit yaa axi loolu kenn mënu koo téye kenn mënu koo téye kon gis nga tooñ gi nga xam ni moom ngeen nekkee yéen gouvernement Sénégal injustice bi ngeen nekkee ak jaay doole gi bàyyi leen ko balaa moo balaa moo weesu bu bu weesuwul sax nag laa wax masalan xoolal li ñu def Cheikh Omar jaay lan moo ko gën a doon jaay doole jaxasook un député Djibril War mu wax ci moom dëgg la lam wax ca moom mën naa am ñaaw na wala ñaawul ñoom ñaar la dëgg la wala du dëgg diffamation mu taxaw dans publiquement ne ko yow dinaa la toroxal duma la bëccëgu ndar kàmm te muy dëgg tëj ko ci kaso bi ngir lan diffamation daf maa fenal loolu kan lañ ci mës a tëj Sénégal fii ñaata faux information ak diffamation ngay xëy di dégg Sénégal te du te du fenn nañu bàyyi jaay doole gi alladina laa yarxamuuna annaasa fi l ardi laa yarxamuhum allahu fi lsama képp ku yàlla sunu borom jox doole ci kaw suuf te yërë moo jaam ñi wallahi boo ñëwee dana la duma ba sa ndigg rëq su ngeen yaakaaree ni doole ji dafay continuer vous êtes trompe da ngeen nax seen bopp te xam ngeen ni yéen du continuer te yàggatul kon tontu bi leen sénégalais yi dox jox sax dafa doy sëkk mooy da koo raje maanaam da koo dàq fa mu doon liggéeyee fa mu doon jàngale moins de vingt quatre heures ñu dajaleel ko loo xam ni jege na trente millions ci population bi loolu dong dafa doy tontu yow gouvernement yow président sa benn citoyen koo xam ni kenn la ci yow amul doole ku ñàkk doole la mu dem ci barab di liggéey tooñu la waxu la defu la dara nga fexe ba dàqlu ko foofu sa population ne nañ ko dajaleel alal lu matul benn bis vingt quatre heures est-ce que mat na douze heures ñu dajaleel ko ci plus de vingt million lu jege trente million loolu tontu bu doy sëkk la ci yow loolu dafay wan ni sa population ñu ngi lay suur te yëgoo ko loolu dafay wan ni population bi d'accordul benn yoon ci ni ngeen di doxalee d'accordu ko ci ndeyjoor d'accordu ko ci càmmoñ li leen population bi jox comme lettre comme message bu fekkee nga xam ni doyu leen bu fekkee nga xamante ni maanaam waaruwu leen ci dellu gannaaw dara du leen waar ca continuer leen bu verra da ngeen gis sa taraw na mada sa yahdus lakum nañ bàyyi jaay doole bi yoru leen doole dañ leen ko dénk Sénégal il est temps les yenn ci poste yi ñu maanaam ñu ñu ñu def ko à politique nga xam ni kenn kenn dootu ko ci ministre de la commerce ministre bi yor ci wàllu njàng mi wàllu santé wàllu wàllu liggéey yooyu yëpp wërta nekk politique ndax yii lay jur mooy da ngay nekk benn bouton boo xam ne président wala politiciens yi dañ lay def dañ lay dañ lay manipuler comme comme il faut Sénégal j'en ai Sénégal Sénégal kenn xamul lan la moom ma dafa mel ni Sénégal daal fi mu toll nii yàqu gi mu yàqu dafa mel ni caaye ju ñor ko gi dagg fu ne lay wàccee takat takat yàqu gi nag ci ñi ci kaw ñi ñi tuddee ñi ci kaw rek la les ministres les DG président les députés yenn ci maire yi kese waaye population bi moom macha allah Sénégal population bi macha allah amuñu benn jafe-jafe ñu ngi liggéey ñu ngi muñ ñu ngi góorgóorlu waaye ñi ci kaw dañoo yàqu comme soble bu nëb yàlla leen fi yàlla bàyyi ba jamono rek incha allah lépp da ngeen ko xam waaye yàlla na leen yàlla soppi sax nag yàlla baax na. ñu ngi jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah lakum shukran lakum sunu mag ñu baax yi fi daan yare dinu wan di yoon wuñ deju wal qalami wa ma mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobule boobule bés nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci toolu lislam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Khadim Rassoul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor Diop nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am six millions de francs CFA ka ca topp cinq millions mille francs ñetteel ba cinq millions fukk ak juróom ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog trois cent mille francs CFA C3S ñu ngi ko yëgal njiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place neuf heures ku ci bëgg yeneen leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36.